di di sant yàlla bu ñu amee euh, ñun waa port yàlla may ñu euh, ndam ñu mën a juboolee les ligne maritime ak les acteurs portuaires ñoo xam ne ñoo amoon problème ci seeni diggante problème boobu dafa amoon impact aussi ci wàllu port port bi amatul tey bateau bu nekk géej te doo mën costé port bi dafa accéléré marchandise bi da daan day génn li gën a li ëpp ñenti yoon ni mu daan génne avant donc magasin yi ak terminal à conteneur bi fees dell ci ay conteneur commerçant transporteur ak commerçant transporteur ak transitaire dañu am relation boo xam ne dañ leen may ay fan seen marchandise war a nekk ci biir port bi soo dépassé fan yooyu da ngay fay ay pénalité mooy ay alamaan ci pénalité yooyu dafa dem ba jéggi dayoo ndaxte embouteillage yi am ci biir ci biti port bi mooy la congestion munu mënuñu seen camion mëntuñu yegg ci poor bi mun mëntuñu yegg ci magasin yi pour jëli seen i conteneur conséquence yi mooy ñi yor seeni i ligne maritime ne leen da ngeen di fay ay pénalité ci loolu ñu liggéey ci ay anam yu am solo DP World moo xam ne état du Sénégal moo jël suufam jox ko ne ko géreel port bi ni ngay gérer yeneen i port yi désormais dañ koy surveiller pour ñu xool performance yi muy am pour génnee marchandise bi nekk ci ay magasin war a dem ci commerçant yi naka lañ ko war a defee ci anam gu am solo méngoo ak contrat yu ñu signé ñoom am nañu ay ndaw yu ñu jël cinq personnes ñaari ndaw port ñetti ndaw waa collectif bi ñoo koy saytu désormais ñu delluwaat ci performance boo xam ne dafay méngoo ak ñi gaal yi di ñëwee ñu ne camions yi ni ñu ñëwee ci biir dakaar dafa bëri méngoowul ak activité portuaire donc bës bu ne ñaari junni camion dañuy dugg Dakar génn Dakar donc désormais camion yoo xam ne dañuy yeb ay conteneurs yu ci gën a bëri dañ koy stocké Diamniadio à la gare des gros porteurs dina indi dina indi lu bëri loo xam ne day yomb yombalal liggéey bi mu am yeneen aussi ñoo xam ne ci collectif yi dañu daan am jafe-jafe pour jot seen i facture am ay jafe-jafe pour jot seen i bon à délivrer ñu xool ko ak ñoo xam ne ñoo leen doon ñoom nañuy liggéeyal mbir mi MSC ak Maersk ñu def plan d'action ñu ngi ci liggéey aussi ñu ngi gis avancement ci côté boobu ba pare ñu xam ni li gën a bëri ci suñu liggéey faut que Dakar circulation bi tar ñu def donc opération coup de poing décongestionné ñi ñëw taxaw di gaare ci mbedd mi di bàyyi seen i camion ci yoon bi ñoom ñooy blo ñoom ñoo daan bloqué port bi ñu def action ak ñoom ñu dégager ko pour préparer le retour au travail bi moo demee ba pare sottil loo xam ne moo nekkoon ci suma ay responsabilité mu des bras de fer moo nekkoon entre armateurs yi ak le collectif ma laaj ndimbal premier ministre muy recevoir ñu démb mu wax ak ñoom wax ak man wax ak armateurs yi ñu bàyyi seeni grève ñuy continuer discussion yi pour gën a am solution yoo xam ne mun nañu durer te mun na permettre port autonome de Dakar boo xam ne tey amul benn gaal bu yeb bu yeb ceeb bu yeb blé bu yeb suukar ak ñoom seen gaari géej marchandise bi mi ngi ci magasin yi circulation bi dafa war a dem ñu war a mën a am port bu am solo maa ngi sant yàlla di remercier premier ministre di remercier Pape Sagna Mbaye di remercier les collectifs collectifs yi dañ ci jàpp bu baax transporteurs yi transitaires yi ak commerçants yi maa ngi aussi féliciter directeur général des douanes def ci jàpp bu baax a baax li ñuy wax fii yëpp waxatuñu douane ñoom ñoo seede ne douane mi ngi def liggéeyam ci cinq heures wala quatre heures tey au Sénégal mu nga defar sa ay formalités douanières nga am nag problème ci huit jours pour génnee sa marchandise moo doon problème bi lii laa amoon li may wax sant yàlla lii buñ ci jàppee ñëpp jàpp ci dina dinañu may président Macky Sall mu yeggali vision am ci hub portuaire ak maritime de la sous maa ngi fàttali ni président dafa am ay projet yu am solo ndaayaanu Ndayane Bargny Sendou yoo xam ne suñu jeexee ba ñu livré leen problème port de Dakar dootuñ ko waxati waaye il faut ñu téye ko bu baax a baax lii laa amoon li may wax di sant yàlla di leen remercier bu baax a baax